Abdou Dóor di rakkam di rakkam waaw sëñ Modou nag moom ñun wax ci moom dañ ciy lottu daal ndax moom kenn la moom moom comme nu féete yàlla rek ko xam na moom ñu boole moom waaw ah, suñ baay teel naa dem waaye taxaw na ci ñun taxawaayu baay taxaw taxawaayu mag jaaxlewuñ dara ñoo koy sant di ko gërëm bu baax baax tey ñaan màggal gi ñu fekkewaat ko at yu bare bare tubaarkaal li ci war lépp am na kër gi dara manqué wul macha allah waaw ah, macha allah yéen ñu ngi leen di sant bu baax nag ndax ah, keroog ba may soog a extraté yéen gi ñëw sëñ Modou jóge sëñ mu Fass yi waaw ah, muy wóllëreem ñoo ngi sant bu baax te di leen ñaanal yàlla téye kóllëre gi màggal ñu teewaat ko at yu bare yéen yàlla defal leen jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. man maay Alaaji Ousmane Ndoye taalibe sëñ Abdou Wadoud Mbacke di ma fi dalee ñëw léegi def na juróom benn fukki at topp sëñ Abdou Wadoud nag li ma xam ci moom bari na lool li ma ci njëkk fi may tàmbalee moo di way juróom di sëñ Modou Farmata Mbacke bi sëñ Abdou Wadoud matee dal jàng da koo teg ciw fas yónnee ko sëñ Modou Farmata baayam ci ci njaareem bu ko sëñ bi xoolee dani dani dani nañ ma ko sol sëñ Fallou man kii mënuma koo yar sëñ Fallou moo yor sëñ Abdou Wadoon ba tërbie ko taraxee ko def def ci li li mu war def ci moom lépp keroog sëñ Modou sëñ Abdou sëñ Modou Farmata baayam sëñ Fallou da koo teg ci oto moom sëñ Abdou Wadoon dem ba njaareem daal di wax mbooloo mi ne leen koo xamante ni day dangaa toppoon sëñ Afia Mbàkke ba mu génn àdduna nga topp mañ Moodu Farmata ba mu génn àdduna ab duudóota ngi nii toog daal ni man sëriñ ko yàlla bind de moom sëñ Fallou de man Fallou de sama doon am sëriñ bu may jébbalu te duma xàcc duma ma déng-déng ginnaaw borom Tuubaa ab duudóot mii lay doon daal di wax ni maa ko yar de maa ko tërbiye maa ko taraxee boole ko ci góor yàlla muy def di dindi man loolu leer na ma man mi wax yow def gi dindi gi moom leer na ma kon sëñ Abdou Wadoot Euh, li ma ci xam lépp sax mënuma koo wax lépp waaye nag li ma mën a xam daal moo di ku baax la woon waaye yàlla la woon taalibi murid saadix la woon ku daa dimbali itam ak njabootam ak ak bokk yi ak jullit yëpp ba ni mu demee tey tuubaa euh, am ndimbalam ba tey moo des ci kër gi tey di toog tey di xalifa di sëriñ Modou Mbacke ak rakkam ak sëñ Fallou euh, mënuma lim ñépp waaye ñoom ñëpp ñi ngi taxaw taxawaayu sëriñ Abdou Wadoon waxatuma nag sëriñ Modou Mbacké mii toog tey xalifa bi kon dañuy ñaan rek yàlla ak yonent bi sëriñ Touba Serafal yàggal ko fi ak rakkam ak taalibe yi ak yéen itam yor liggéey bi sans borom yàggal leen fi te li ngeen jublu ci liggéey bi ci lu baax yàlla defal leen ko ci barke yonent bi barke Seexul Xaadim barke bisu màggal bi yal na yàlla faj aajo jaam yëpp faj sunu aajo wasalaam waaw la loolu li ma ciy wax sëñ Moustapha Euh, kon sonaam mbokk ndax man maa nga dëkk Taïba te baayam di sëriñ Cheikh Tidiane daa koo bëggoon mu bëgg ma amoon na ay jamono mu ñëw Taïba Ndiaye keroog di siyaar si gu ñu wax ma Matar Soom Ndiaye oto bi gunee dañ koo jël oto bi laalatul suuf bu sëñ Cheikh kon sëñ Moustapha moom itam na la wóor ni sunu mbokk sunu wóolër la te it fas naa yéene sax mu xam ma bu soobee yàlla man maa tudd Alaaji Abdou Wod Alaaji Ousmane Ndoye waaw di tal bi sëñ Abdou Wadoot waaw asalaam maaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu man maa ngi nuyu mbokk yi seetaan euh, télévision bi ndax télévision bi dafa mel ni njaboot yi benn lañ dafa mel ni kër gi dañoo bàyyi ci seen kër maam ñëw seen kër maam muy benn maam bi rek kon nag fii nga xam ni yàlla dogal na ngeen ñëw fii muy Serigne Modou Mbacké Abdoul Wadoud moom maak moom moom euh, ku ñu xam xam ci jaxasoo gu mat sëkk xam ci yu bare yoo xam ni sax du jara leeral njabooti jiit kenn yàqu ci dara ba na kon yéen it su fekkee ni teew ngeen ci barab bi ne leen wóor ni seen kilifa gu baax googu muy Serigne. Moustapha si nga xam ni e, képp ku xam Serigne Cheikh ci ci cofeel man damay wax ni Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy e, képp koo xam ni am nga yeewute xel am nga yeewute xol doon na koo xam ni soo ko dégloo mu yokk ci yow lu bari ku mu mën a doon sëriñ bi dañuy faral di ànd di waxtaan ci moom ba keroog ñuy wàcc ci oto bi kon Serigne Cheikh moom bu ñu ko tuddee ci géewam kull ku fay nekk nekk njaboot jàpp naa ni bu ñu ko tegoon ci lu ñu war a diriger lu mu rëy rëy mën na ko diriger loolu laa gëm laa ko ndax ndax ndax ki ñu am muy Serigne Cheikh moo toll noonu léegi nag barab bii ngeen ñëw. te muy bisu màggal gi di bisu sëriñ Touba sëriñ Touba ak Mame Aladji Malick benn lañ ñoo bokk deret waaye ñoo bokk leer ñoo bokk deret waaye ñoo bokk leer xam nga gerte dafay misaal ci mbokk dara moom gerte yàlla dafa dafa ñu wax ni ci alquran nañuy settantal ci li mu bind moom yàlla moo ko moo ñu ko wax ñun jaamam yi gerte nag bokk na ci boo dee xool ci settantal eh, baykat bi ku war a gëm yàlla la doom bi lay jël dem jëmbat ko balaa yàgg mu jebbi lu bari waaye la cay jiitu mooy xottu la yàlla di woo ni ko yow yaay mbokkam mi nga xam ne soo ko protégé wul lu bari mën naa ñëw yàqu ko moom doom bi xottu ñëw ni ko kon maa lay protégé ndax fa ñu yàlla boolee du tey ñax mi nga xam ni mooy ngooñ téye ko ba ni ko dara ngelaw du la fekk ci biir tool bi fëkk la yóbbu la ndax yaay sama mbokk waaye ñun nit ñi buñ ko soxlaa dañuy toj xot xott sànni jël ngooñ jox xar jël doom jariñoo waaye fuñ ko suulee rek yàlla indi mbokkam yépp kon mbokk wu dëgër muy diggante Serigne Touba ak Mame moo tax diggante boobu ëpp naa def ku ciy dugg kër mag ñi nag tollu nañ foo xam ni képp ko képp koo xam ni yaa ngi yëg dara pour sa la nga am ci benn kër mag gi mooy confirmer ni cofeel ga ngay am ca yeneen mag ñi mooy confirmer ni amee nga fa dara kon nag maa ngi tëje nag benn wax boo xam ni ci Serigne Modou Mbacké Abdoul Wadoud moom ambassadeur laa koy woowee Serigne Modou Mbacké mooy koo xam ni ci jàmm lay dox sëriñ Modou Mbakke mooy koo xam ni ku am tolerance la sëriñ Modou Mbakke bari na lu muy lijjanti ci senegaal loo xam ni du feeñ ñi moom ca ña ko dox wax ko ca la bokk te bu ko doxul woon wax ko mën naa takk te loola dafa bokk ci jaamu yàlla sëriñ Modou Mbakke mooy ki nga xam ni fii ba lu mu mën a doon ba Amérique ba Asie bari na ci problème yoo xam ni boo ko fekkee ci téléphone mu koy réglé danga naan ndax sëñ bii day noppalu waaye sëriñ Modou Mbacke Abdoul Wadoud mooy koo xam ni nee na man sëñ Touba mooy sama maam même Maam Alaaji mooy sama maam waaye Cheikh Amour Fouti yu mooy sama maam waaye bépp mag mooy tudd rek gëm na ni day maamam day daraam moo tax doxinam di doxinu ambassadeur dañu dafa gën a siiwe nag ci ëtt Serigne Cheikh te diggante ñoom Serigne Moustapha Sy ak sëriñ Cheikh moo leen boole woon seexale leen ni leen nag na ngeen di doxal diine ji ak di ko xal neen yéen a fa toll kon Serigne Moustapha Sy ndigal li nga xam ni bàyyikoo na ci Serigne Cheikh ak ndigal li nga xam ni ñoom ñaar ñëpp ku ne dégg na ko loolu moom la ñuy wéyal ba tey mooy waral kon ñoom ñaar bari na loo xam ne ci seen seen diggante mu ngi defar lu bari mi ngi tappe xol yoo xam ni mi ngi defar ki nga xam ni jàppoon na ni lii warta nekk mi ngi yàqal ki nga xam ni moom pexeem mooy yàq rek seen diggante seen ànd seen toog seen jotaay mi ngi koy defar te bés bi ci gën a yéeme mooy guddi gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ci gën a yéeme te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku la xam ne ila rahmatan lil alamin yàlla daf ko yónni mu doon yërmande universel léegi nag mag ñi xekk ma googu ñu donn ma ne mi ngi ci ñoom ñaar seen jëflante ba tax na kon Serigne Modou Mbacké daal su ma doon tënk dama lay wax ni la bépp nit bépp jullit bépp sax dul jullit bu xoolee ci moom dana xam ni réew daal boo ci bokkee fexeel ba nekk nitu jàmm fexeel ba ànd ak ñëpp fexeel ba bëgg lu baax fexeel bay dénkaane lu baax fexeel di ca dox ak di ca di ca di ca nit ña lii daal mooy sëriñ Serigne Modou Mbacké Abdoul Wadoud kon ba tax na seen teewaay fii jàpp leen ni maa ngi waxaat ni sëriñ bii nag nga xam ni moom mooy yor caméra bi ndeysaan bu yàgg rek damay waxtaan ak moom ma am lu ma jànge ci moom ci wàllu tolérance te loolu mooy lan mooy xam nga ku ñëw ci dëkk jóge ci télévision bu mag nekk responsable nekk kilifa waaye xam gi nga xam ni sa ëttu maam nga ñëw ngay liggéey ci wàllu ñi nga xamante ni ñoo yor sécurité ak ni muy demee nga xam ni yéen am ngeen droit di jàll ci liggéey yi waaye am gàllankoor bu tuuti malentendu ci waaye cerewul moom ci jëf jooju nga xam ni homme de loi bi mi ngi taxawal mi ngi koy taxawal mi ngi koy wax ni waroo jaar fii te war na faa jaar tolérance am googu jur na moom. kooko nga xam ni sol na tëni mu xam ni tëni bii mu sol da koo solal Sénégal respect boobu dafa wane ni moom fa mu jóge lañ ko jàngal ci yar ak i teggin lañ ko jàngal ci tolérance lañ ko jàngal ci yaatu dënn te Serigne Cheikh di ko wax mi ngi ko jëfe na ko kon fa tubaarakallaahu maa ngi wax ni yàlla na yàlla yokk leen yàlla yàlla yokk télévision bi yàlla yàlla barkeel ñu ngi nuyu ñëpp di wàcce foofu kàddu yi di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Modou Mbacke da di ñun moom mooy suñu wasila ñu yaakaar ko nag àddina ak àllaaxira duñ ko wecceeg dara Serigne Modou bëgg nu lool yërëm nu lool sëñ Modou suñu jëmm yu xeebu yii da koy tax mu dagge fii mu déparé fii ba Touba Kër Massar din fa fekk waaye nag ci moom la ñu sax te duñ ci jóge ba abadan ñu koy ñaanal ci kattanu yàlla ak yonentu beeg Serigne Touba maamam lu mu fi yàgg doyut kontaan nañu trop ci mbiram. ndax nag dafa bëgg ay taalubeem yërëm ay taalubeem ay taalubeem it jaral ko lu ne moo tax nun jaral nañu lu ne ndax nun moom rek lan am nun sëñ Touba rek la ñu am te duñu koy ceeg dara ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér ba lu mu yéenee liggéeyal sëñ Afia maamam yàlla na yegg Moussa TV bi nga xam ne moo ñëw fii ci kër sëñ Modou Mbacké suñu wase la ci yoon wi ndax ñun mo waaw mooy suñu buntu ci yoon wi waa kër sëñ Moussa Fassi ah wax dëgg fa yàlla lem gu ñu segg booleeg meew day yomba suukar ndax yéen a bokk maam kon tubaarkàlla macha allah seen télé bii fu bëgg a yegg ci fu baax yàlla na ko fa yàlla yeggale ci barke Seydina Mohamed. waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal fii maa ngi nuyu tamit Serigne Modou Mbacke Abdoulou Dóor maa ngi wax jërëjëf Serigne Touba jaraw la ki maam Cheikh Ibrahima Fall waaye sëñ Modou Mbacke Abdoulou Dóor yàlla na fi yàgg lool te wér ñu ngi koy sant bu baax a baax. ndax li tax ñu koy sant mooy comité d'organisation grand magal de Touba bi nga xamante ne nii moo yor mbooleem luy liggéeyu màggal gi nga xam ne dinañ ko waajal lépp ay weer moom buñ ci moom moo ñu ci boole tey ba ñu mën cee bokk ba nga xam ne boo lëggee si biir danañ ci mën a ndamu sagu ci nu ñun de sëñ Modou Mbacke Abdou Doon moo ñu boole woon ci comité d'organisation grand magal de Touba mu nekk loo xamante nii ndigal la lu jóge ci sëñ bi sëñ taxa mi fi nekk ndax képp ku fi nekkal Serigne Touba rek yaa joxe ndigal loolu kon tey Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bassirou moo fi nekk moo leen jox ndigal li Serigne Bass Abdou Khader mu law ba ci Serigne Modou Mbacke Abdou Doot ñu koy sant bu baax ndax lépp li nga xamante ne nii mooy ndigal li nga xam ne moom la ko Serigne bi jox sëñ bi mi ngi koy doxale bu mat sëkk moo ngi ñu ci eh, soññu saa su nekk sëriñ bi mu ngi ñuy soññu. te ñun bu ñu xoolee ci sëriñ bi rek duñu duñu duñu sonn duñu tàyyi sëriñ bi mu ngi sur le terrain saa su nekk moo ñuy yee bala ñoo tëdd moom dinañ tëdd lu yàgg te moom di tëdd kon moom dafa xam ne ki ñuy liggéeyal moo mat a liggéeyal muy maamam sëriñ Touba ndax maamam sëriñ Touba moo waxoon ne sama bisub tukki bii day maa ngi wax ne képp koo xamante ne ni sama mbég sa mbég la na ñëw nga sant le ma yàlla ci bis bii nga xamante ne nii mooy 18 safar moom laa fi jóge woon di dem di liggéeyali yàlla sunu borom ci mbaaxub Seydina Mohamed salallahu alayhi wa sallam sama sëriñ kon loolu noonu lanu sëñ bi di tettee sëñ Modou Mbacke loolu rek la ñuy xamal mooy liggéey bi na ngeen ko liggéey ci anam boo xamante ne nii yàlla sunu borom bi dina leen fay ci barke Serigne Touba waaye fay gi mu leen di fay tamit bu ngeen ko seelalee te teg ko ci ni ngeen ko war a tegee di ngeen gis fay gi fii di ngeen gis fay gi fa ñu jëm. loolu rek lañu sëñ Modou di digal te ñoo ngi ci. waaw ñun dañoo nekk fii ci waañ wi sëñ Modou teg ko ci suñu loxo teg ko ci soxna Khoudia Ndiaye mi mooy sama mag mooy sama jëwriñ nga xam ne moom soxna Ndiaye mi nga xam ne mooy yaay daara mooy magam waaye doxewul noonu dafa doxe taalibe moo soxna njaay ak soxna Kine ñu ngi leen di sant bu baax ak seen njaboot ñooñu ñooñu gunge ni ñu koy liggéeyee fii mooy dañoo am entente ñun ci suñu biir dañuy yëkkatee ndoo di dóorandoo ubbi suñu xol yi ñun ñëpp amul mag amul rak amul dara liggéey bi rek bu xasee taxaw amul âge li ñuy liggéeyee mooy lépp li digg ci ndigalu ci sëñ mun Mountakha ñëw ci sëñ moodu sëñ Modou dina ñu leeral ndigal loolu ñun tamit ñu jëfe noonu amuñ ci benn jafe-jafe. na xale yoo xamante ne nii ñoo gën a tuuti muy mu bokk ci njabootu sëñ bi tey jii dañoo am liggéey bu ñuy def ci kaw. ñooñ tam liñ leen di soññe mooy mag gunge egg baaxu ci ndax dañuy wax ni saa su nekk ñu ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi àndandoo ak ñoom ñoom nañ ñuy xool te topp ci suñu tànk ndax liggéey boo gis muy dox te gisoo ci ay ndaw liggéey ba mën naa bañ a sori waaye bu xale yi amee yar am teggin comme ñoom nuñ ko amee topp ci ginnaaw mag ñi bu ñu waree jël seen walla danañ ko jël te loolu mooy liggéey Serigne Touba te liggéey Serigne Touba bi tamit bu ci waay def dara ba gis ci sa bopp ndax bërigo la ci biir mbaltal soo tegee sa loxo mu dem boo tegul sa loxo mu dem te loolu wax dëgg yàlla ñun yàgg nañ ko dund ñun nag sëñ Modou yàlla da ko dimbali ba nga xamante ni waañ wi amul gengente amul wujj amul parpal amul a déedéet yëkkatee ndoo rek dóorandoo ndax sëñ Modou mi nga xamante ne nii mooy ci sunu jëwrin loolu la xam moom moom lu dul àndandoo lu dul lu baax lu dul diine ak lislaam ñoru ko ak baax rek moo ko ñor noppam bii daal noppam yi daal noppi garmi la bugg cee dégg dara loo xamante ne ni lu baaxul la waa télévision Mourchid TV ñun dañoo bokk ci moom ndax sëñ Moustapha ak sëñ Modou Mbacké lu Dóot ku nekk xam na ne duñu benn ñaar lañu te seen kilifa yu waa waaw duñu ñaar kenn lañu ndax seen kilifa gu mag ga moo jàppoon ci seen ñaari loxo muy euh, sëñ waa Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Sy ni ko Moustapha àndal ak euh, Modou Mbacké ngeen doxal diine ji te ñu ngi koy doxal ñoom ñaar ndax su màggal gi xasee jàll sëñ Modou ko ko bëgg a gis na nga ko fekk soowu Dakar mu toog boo gàmbo demee Tiwaawoon jotee mu dem def fa ñaari fan ak sëñ mu Moustapha wax dëgg yàlla ba nga xam ne mbooleem ku bokk ci musis rek soo gisee sëñ Modou danga naan suñu sëriñ a ngi nii ndax suñu xaritu sëriñ la mbooleem ku bokk ci sëñ Modou tamit boo gisee sëñ mu Moustapha danga koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ndax ni mu mel ak sëñ moodu kon ñuy sant waa Mourchid TV yal na bokk ci télé yi gën a yëkkatiku ci barke Mouhamed salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. maa ngi Amy Ndiaye awlax waaw diggante sëñ Modou ak sëriñ Moustapha Sy boo ma ci laajee dinaa ci sawar a wax ndax ñun bu ñu bëggee sëñ Modou ñun suñ fonkee sëñ Moustapha Sy bëgg ko sëñ Modou Mbacké moo tax ñu bëgg ko man damay daw. pour gis sëñ Moustapha si bu ma demee Tiwaawoon kursu ba laay yendu kursu ba laay fanaan te loolu yëpp bu ma koy def jëmm sëñ Modou Mbacke moo tax sëñ Modou dañ koo bëgg bëgg dañ ko koy bëgg ñun dañoo bëgg sëriñ Moustapha Sy ñi nga gis ñëpp sëñ Moustapha Sy lañuy ñuy nooyee fu ñu ko gis dañuy daw pour gis sëñ Moustapha Sy pour ziar ko ñoo ngi ñaan seen diggante yàlla na yàgg yàlla na sax njaboot gi gën a tëppaloo gën a booloo ci barke Mouhamed mu gën a yaatu ku xamul woon na nga xam diggante sëñ Modou ak Serigne Moustapha Sy ndax bëgg nañ ñëpp xam ko képp ku nekk ci waañ wi wala nga ne ci kër gi rek bëgg nañ nga xam diggante sëñ Moustapha Sy ak Serigne Modou Mbacke Abdou Dóot ndax lu yàgg la lu jiitu seenu juddu la ñoom ñaar ñu nekk fi feddali ko taxawal ko ànd ànd bu sincère nag ànd bu dëgg ñoom ñaar waaw ànd bu dëgg waa Mourchid diina waa Mourchid dañ leen di sant di leen gërëm ndax ñoom fépp fu sëñ Modou Mbacke woote ña nga fa def fa seen taxawaay def fa ba mu mot sëkk sëkk sëkk dara du ci manqué ñoo ngi leen di ñaanal télé bi yàlla na yokk ba yëg ko ba jur ay télé télé télé ci barke Mouhamed waaw loolu lañ leen di ñaanal Mourchid. man su feetu balaa tudd. ma taxawaay ci kër gi xanaa yàgg fi rek man la woon ak seen baay baay sëñ Abdu ba yàlla dogal baay sëñ Abdu nelaw muy sëñ Moodu Farmata Mbàkke bi mu nelawee sëñ Abdu ñëw ñu àndaat ci sëñ ànd ak sëñ Abdu sëñ Moodu Mbàkke nag mooy doomu uh, abdul abdul odoot ami ñangay yaayam ami ñang sama xaritu benn bakkan ñu nekk ak fatima dun magam fatima dun ak soxna njaay ñoo maasu sama doom moom mi moom sëñ moodu mi mook sang sama doom ji doon wax ñoo maase ñu nekk ku ci ku ci ku ci sa loxo tab ja sa morom a nga ca Seydou Nourou Tall asalaamaaleykum wa rahmatullah anaa bi ñuy sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah di yëkkati ay kàddu yu gàtt rek eh, kàddu témoignage ci sëñ Modou Abdoul Wadoud mi nga wax ni Eh, di suñu wëllëre te sëñ Moustapha eh, di di sababu sama kóllëre ak moom ndax ci résidence am la ñu xamante boobu ba tey fa tabaarakallah ah ñu ñëw fi nag di eh, ci ci tànku waxtasimu bi abdullahi jamian wala tafarruqu donc defar diini ji ci barke barke mag ñi donc yàlla dimbale ñu ñu ñu kóllërewu ak euh, sëñ Abdou ak rakkam bii di sëñ Moustapha fa tabaarakallaahu donc ñuy doon nit ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla kuutaay gi ñu wuutu euh, seen waajur matele nañ ko waaw matele nañ ko ci xam-xam matale ko ci jikko matele ko ci yar matale ko ci teggin ñun itam ñuy soppe sëriñ Moustapha fa tabaarakallaahu di taalibe ci kër gi di sëtu Cheikh Al Umar di sëtu itam Euh, tafsir Amadou ak tafsir Xayaar ca Dagana voilà donc euh, at bu ne ñooy ñooy gàmmundoo sëñ Moustapha nag wax dëgg yàlla doon ki nga xamante ni moom tam kenn la ci diine ji ndax na mu yare man war naa àdduna yëpp gisuma ku ko yaree voilà gis eh, na mu na mu jàngale itam kenn jàngalewu ko fa tabaarakallaahu waa léppam matale ñu ñu koy ñaanal fu ñu toll waa ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan mook ñi mu àndal ñëpp ci mission bi fa tabaarakallaahu waaw moo tax euh, bi ñu leen gisee rek wax dëgg yàlla xol dafa sedd xel dal lool waaw ndax euh, nii rek ngeen mën a taxawee fa tabaarakallaahu donc yan yàlla mottali seen mission yàlla yeggale seen yéene yàlla barkeel seen taxawaay barkeel seen liggéey yàlla yëkkati Mourchid TV yëkkati lépp lu sëriñ bi yëkkati bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sëriñ bi moom xam nga euh, li ñuy wax rek sëriñ bi dafa am lu mu doon waaw dafa am lu maam yoroon Seydi El Hadj Malick wala mën nga remonter sax ba ci kaw waaw mais ñu yemale ko foofu rek euh, sëriñ Babacar yor ko suñu soppee suñu xol suñu lépp di sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Maktoum mooy suñu lépp yor ko moom it mu ñëw wuutu ndono gi fa am ndono gu mu yor moom itam mission am fa tabaarakallaahu euh, dafa dafa liggéeyal boppam waa dafa liggéeyal boppam ba am lu mu amal boppam li nga xamante ni euh, wax dëgg yàlla liggéey rek koy joxe waaw moom dafa def résultat donc loolu ñépp ci ànd ku wax ak ku waxul ku nangu ak ku nanguwul euh, sëriñ bi moom dafa am li nga xamante ni euh, c'est spécifique waaw yëfu boppam la waaw moo ko liggéeyal boppam yàlla fayal ko boppam pay gi itam ñëpp teg nañ ci seen bët waaw sëriñ bi fees na xol yépp sëriñ bi dalal na xel yépp waaw donc li mu nekk nag li mu nekk mission bu bu difficile la wax dëgg yàlla mais nag noonu rek dara mënul sedd itam li mu donn ki ko donn itam li mu donn ku ko donn il faut nga jànkoon jànkoonteeg ay jafe-jafe il faut nga jànkoon jànkoonteeg ay gàllankoor il faut nga teg ay lëndëm lëndëm waaye lépp rek fa ndox ma daan euh, daan taay ba tey rek tepp tepp rek waa résultat yi woon rek ñooy dellu si waat fa tabarakallahu ñu koy sopp di ko ñaanal di sopp képp ku ko sopp waaw di ñaan yàlla yëkkatikoo yàlla surtout wér tumuranke na jafe na yan na ko yàlla sol ba mu fees gudd fan tumuranke na jafe na yan na ko yàlla sol ba mu fees yàlla yëkkati ko yàlla yéegee ko moo xam fu mu bëgg a yegg nag moo njabootam yépp moo képp ku ko yaakaar sagu diine la sagu tariqa la sagu kër gi la waaw ci biir ak ci biti nag waaw matale na léppam jëggaaniwul dara jëggaaniwul sutura jëggaaniwul teraanga jëggaaniwul xam-xam jëggaaniwul leer mi ngi toog fi mu toog di doxal la muy doxal waa te bu yëngoo àdduna yépp xam ni yëngu na ci ci zahir ak ci baatin waaw loolu la ko yàlla defal loolu nag nangu nañ ko bu yàgg ba ñu juddoo lañ ko nangu waaw wa na wéy mu yàgg fi dañu gunge yàlla bàyyi fi mursid mursid nag lañ ci wax mooy itam ñoom seen mbir dafa spécial cest à dafa original voilà donc dafa ñu indi seen stylu bopp seen yëfu bopp yëf yi dox na mu war doxee sëriñ bi nag moo ni mel lépp lu mu teg loxo rek da ngay dem moo xam rajo la moo xam télévision la moo xam politique la moo xam culture la moo xam lu mu mënti doon lu mu teg loxoom rek loolu nag liggéeyam la dafa liggéeyal baayam liggéeyal maamam fa tabarakallah yàlla nangu yàlla nag bu du nangu di di di foqati mukk waaw yàlla moom bu nangoo nangu na bu joxee itam joxe na fa ñun nag dëgg yàlla ah ñu ngi dellu rek di kontaan waa di ñaan yàlla yëf yi jëm kanam mu mu fekkee ko nag mu tal ko itam donc njabootam yépp waa ñu ngi gàttal daal mais daal wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu waaw fa tabaarakallaahu sëriñ Moustapha daal jazakumullah anna xayr waaw yan yàlla fayal ko boppam moo xam nag la muy yóotu moo xam la muy séenu yàlla na am lu raw njortam bi barakati rasul saa sallam ñu ngi kontaan lool di gàttal kàddu yi rek di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla wa tabarakallahu waaw kontaan nañu daal fa la ñu mën a yem wa axiru daxwana an alhamdulilahi rabbil alamin téléspectateur Mourchid TV ñoo ñoo ñëwoon tey fii ci Touba Mbacké egsi ci daaray Serigne moodu Mbacké Abdoul Wadoud tey nag li ñu taxoon a jóg mooy ñu ñëw ci waañ wi xool soxna yi ak ni nga xam ne noonu lañu nekkee ci biir waañ wi ak seen nekkin ci biir kër gi daje nañ fekk ay mbokki taalibe yoo xam ne waxtaan nañu ak ñoom bi ñu paree nag ci ñoom ñu egsi ci kilifa gi pour mu mottali waxtaan woowu ñaax njaboot gi soññu leen ci yoon wi nga xam ni ci lañu nekk kon dañuy jox kàddu gi sëriñ bi euh, salaamaaleykum salaamaaleykum wa Euh, oustaz ñu ngi lay nuyu di nuyu El Hadj Fall di TV yëpp di rafetlu seen taxawaay ci suñu bis bi nga xam ne yàlla moo ñu ko boole ngeen xam loolu jàppe ko noonu di ko doxee noonu kon luñ bokk la ngeen def ci seen waar jërë ngeen jëfati euh, tey ngeen ñëw nag doon xool si liggéey bi liggéey ban la mooy accueil hébergement restauration ci biir comité d'organisation ci commission communication et culture euh, tey nag ngeen ñëwoon ngir xool si waañ wi lo li nga xam ne sëriñ bi dénk na leen ko naka lañ koy doxalee euh, ñoom day wax dëgg yàlla diiru fukki at ak juróom ñoo ñu yoral waañ wi waañ wi nag day waañ wu yaatoo yaatoo yaatu ndax loo xam ne lum néew néew dana mat juróomi téeméeri nit eh, war leen a toggal añ toggal leen reer eh, di leen defaral ndékki loolu kenn ku ne xam na ne eh, dafay xaw a mel ne sax xawut xaj ci bis bi waaye nag ñu ngi ciy def seen kemtalaay kàttan ndax bu dee lu jëm ci gàtt yi ay quatre du matin lañ koy defar ñoom sept heures dana fekk ñu jug ànd ak euh, bokki taale bi ña nga ca raxas ba ñoom ña ngay taal bu ñu noppee ñu nekk fa di leen jàppale ba yàlla sottal liñ bëgg te nañ ko bëggee ndax ñoom ñëpp itam nag ci pas-pas rek lañuy dox ak yéene moo tax dañuy wax ne euh, mën nañ caa bañ yëg coono ñu leen di xool mën nañ gis ne sonn nañu waaye ñoom jombut duñ ci yëg coono. ndax buñ ci nekkee ba ba fajar boo doon boo doon fëggaatee itam buñ jógee dañuy mel ne ñu mos a def dara loolu nag eh, liggéeyal suñu borom moo mel noonu di leen di gën a santaat bu baax di leen gën a soñaat bu baax di ko jaarale ci jëwriñ ji muy soxna Yacine Ndiaye ak soxna Khoudia Ndiaye ak ñu ko seqal ñëpp ndax eh, waa ñu dafa yaatu ñii ñu ngi Ndakaaru ñu jóge Xambal ñu jóge ci Kawlax ñu jóge ci barab yëpp wax dëgg yàlla kon duñ mën a lim ñëpp waaye buñ tuddee seeni njiit rek mu doy sëkk la ca des yàlla xam na ko mooy li ñuy def daal di ko sonne te yonent bi saa sam wax ne ku sonn ci aajooy mbokk julitam eh, ku ne xam ne lam ci wax ndax darajaatun ulaa fi hawaaiji naas yi eh, daraja yee gën a kawe suñ borom dana koy defal nit ki ci kaw bu fajaree nit ki aajoom rawatina nag muy aajooy ku mel ne Cheikhul Khadim kon Euh, aajo Seexul Xadim mooy màggal gi kon képp koo xam ne euh, yëngatu ci ak lum tuuti tuuti rek loola rëy na ci suñu borom te mën naa jëriñ ka ci yëngu àddunaam ak alaxiram incha allah euh, kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen gën a soññaat rek nag ñu gën a takkuwaat te gën a góor góorluwaat te xam ne li ñuy def lépp responsable dafa diis kuñ ko teg ci sa kaw bu doon saayir si képp war ngaa mën a fexe ba lañ la wóoloo ba teg ko nga defe ko nu kawe njortu kala ko dénk rawat nag boo ci te payug yàlla kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ñaan suñu borom mi nga xam ne moo moo waral bés bi am tey te mooy bésu sant yàlla yàlla dimbale ñi ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ ci dëkk bi ak ñi amoon yére ñëw te yàlla dogalu ñëw ñëpp yàlla na suñu borom fajal seen aajo ci saahir no baati noonu bi jaay Cheikh Al borom bés bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw xam nga télévision Mourchid moom yàlla dafa dogal ñu ñëw ci service waaye li góor gi daan wax naan mag mën naa rukk laalo te du mokk ñoom dañuy ñëw ci service bi waaye nag ñu ñëw ak xol xol bu laab xol bu tàlli nga xam ne li mu wax ci waañu rek laay wax ci ñoom ñoom itam waxtu bu nekk eh, ku ne xam na ne dëkk bi xat na waaye ba ñëwee ba léegi fu dugg nañ fa ña nga Kër Sëñ Touba ña nga ci résidence ba ña daal daari kaamil ña nga fu nekk eh, fépp foo xam ne buñ fa demee daañ fa fekk la taxoon sëñ bu woote màggal gi ñoom dañuy la taxoon sëñ bu woote màggal gi bu doon wóoroon ne buñ demee bërëb sàngam daañ fa fekk la taxoon sëñ bi woote màggal gi te mooy ñu ñu jàngalaat nit ñi gën a defaraat seenu biir gën leen tarbiyee waat te loolu ay borom xam-xam ñoo koy def ñoo koy waxtaane ñooñu fu ñu mën di nekk ci dëkk bi ak lu mu roq-roq ak lu mu sori sori sori morsit dana fexe ba dem foofa euh, jël jël jël seeni waxtaan di ko jàllale nag te nam gën a rafete wax dëgg yàlla euh, kon ñoom dikk nañu ci service waaye xam nañu itam nag dañoo ñëw ci seen kër maam ndax fii ak Tiwaawan gi ñu bàyyi ko ñoo bokk mel maam kon loolu genn kër kepp la ba ca desaat ci biir Tiwaawonaat kër Sëñ Cheikh Ahmad Tidiane moom it ku ne xam ne digganteem ak Touba ca Cheikh Mamadou Fadal ba ci Cheikh Abdoul Ahad Serigne Cheikh taxaw na ci taxawaay bu rafet bu jéggi dayoo boo xam ne eh, lam doon lam doon jëmbat moom ak Cheikh Abdoul Ahad ci diggante ñaari kër yi tey genn kër lañ ci doon jëmbat dafa mel ne meññet mi tey eh, ñëpp teg nañ seen bët te mooy sama jotaay man mii ak sëriñ Moustapha Sy mu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane jotaay mu jotaay boo xam ne dafay firi waxe mag ña démb ndax loolu rek lañ bëggoon eh, ku ne xam ne sëriñ Sidi Maxtaar moom da ko bañoon ba bëggatuma déggati Tidiane ak Murit moom loolu la waxoon Cheikh Abdoul Ahad tam wax juré jam ca waxoon ku ne dégg na ko eh, kon nag ngeen xam ne li ngeen gëm te mooy seen kër ngeen ñëw noonu ngeen liggéey ak ñun xam nañ ko comité bi yëpp xam na ko ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di ko jaaral nag ci sama euh, kàddu euh, sëñ Bass mu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy président comité d'organisation Magal Touba xam na bu baax seen taxawaay mboolem ku ne ci comité bi xam na bu baax taxawaayu Mourchid TV ndax ni ma ko waxee rek eh, léeg-léeg sax mu soññee ko ñenn ñi ñenn yenn journaliste yi ndax màggal gi dafa am lu tax sëñ bi woote ko la tax mu woote ko nag ku ñu ci dimbale di ko fësal ak yaatal la waaye nag léeg-léeg ñu gis ci loo xam ne wax dëgg yàlla bokkut ak li taxoon sëñ bi woote màggal gi kon loola ku ko génne dafa mel ne la ngay def taxut nga xame ko noona te loolu dafay am léeg-léeg ndax sa biir kër dong mën nga faa nekk am luy xew ca biir kër ga te doo ko yëg doo ci teg bët loolu itam nag màggal gi moo yaatoo noonu bari na ci yu fay xew yoo xam ne sëriñ bi du yëg du tin ñëm dénk liggéeyu màggal gi duñ ko yëg duñ tin waaye bu ñuy mënoon a dimbali daal ñi nga xam ne ñooy taskari xabaar yi ñu xam daal liñ liñ leen fi soxlaa ñuy def loola te yecca des ñoo xam ne kay làqatu di ko def xëy na wala bëggul sax eh, mu fese nen ni wala ba mu koy def xamoon ne bu fesee nen ni du baax ci moom mën na ko bañ a def te mooy yi nga xam ne daal neexul ba neexul waaye manas manas naa wax ne bokku ci li wooteeb sëriñ bi sëriñ bi moom wooteem bi daal berne moom ca bokk bu baax jàng xasida jàng alquran eh, ay salaatu salawaatu ala nabi jokk bokk loolu mënees na ko génn fu nekk waxtaane eh, alquran waxtaane ku tedd gi sallallahu alayhi wasallam waxtaane cheikhul xadim ngir ñu mën ko roy li nga xam ne noonu lañu ko alquran sante ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko it ci mboolem ñim defaral boppam moom suñu borom ñuy ay nit ñu baax loolu daal buñ buñ buñ ñu mënoon a dimbale di di di génne daal li ñi nga xam ne dañoo nekk ci li tax sëñ bu woote sant la leen baax waaye kon daañu leen gën a sant ku ci doon juum bay génne loo xam ne bokkut ak li tax sëñ bu woote daal ñu ngi koy ñaan bu ko mën a teg suuf mu bàyyi ko ndax li ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci li bi taxoon li bi woote ñooñu ñoo gën a bari foofu kon ku bëgg a liggéey man ngaa tàmbalee ca ñooña yem ca ñooña te da nga def li nga bëgg a def lépp loolu loolu mooy li nga xam ne buñ sañoon suñu bokki journalistes yi ñoom it ñu gën a xam loolu ndax liggéey rek moo leen fi te yaakaar naa ne kuy liggéey itam boo sañoon lëgën rek ngay def kon ku ci xawoon a am njuum njuumte itam nag ñu ngi koy ñaan rek mu xamaat ne nii dal la li ci des nag moom wax dëgg yàlla bokkul ci màggal gi